duma len dama len di deggal len sen borom digal sunu borom neena kuma jaamu may sa bor sunu borom neena kuma jaamu wulit may sa bor sunu borom neena aljana man dong ma ko am kanen amu kanen amul aljana sunu borom neena sama aljana kuma ma jaamuwul du fa dugg man ci sa bop lima len ci dolil man Ahmadu moy jaamu len yalla jaamu lenyala yàlla saa bopp laay jaamul yàlla lenyala ma leen yalla jaamu leen yàlla saa bopp laay jaamul yalla jaamulu ma leen yàlla jaamu leen yalla saa bopp laay jaamul yàlla yowmal xiyaamati du fa taxaw di layoo kenn mbaa la layoo di yal kenn mbaa la layoo kenn ñaari baat la ma sama borom di laaj taxaw borom jamono buma fa taxawale nema Ahmadu na nga def ak jami ma ne ko bind naa wan leen wax naa ñu dégg jëf naa ñu gis mm-hmm.